parce boo koy jàng dangay ngay gën a am leer alaji pap mooy dante suñu borom ah. boo demee ci téere bu ñor nurul absar ne nit nit ñi dañu yaakaar ne xul wallahu ahad da nga ko dafa gàtt noonu mu yomb noonu rek mhm. waaye li ci nekk ci ngëneel moom xul wallahu ahad mhm. li ci nekk ci leer moom xul wallahu ahad li ci nekk ci teraanga moom xul wallahu ahad alaaji pap loolu kenn kenn kenn xamul mu toll parce que parce que il faut que nit yi xam itam ni euh, l'ixlaas mooy yaxu alxuraan moom la moom moom moom moom lixlaas donte gàtt na yomb naa jàpp waaye mooy yax mooy yax bi alxaj ndax foofa yàlla wax na yonent bi alayhi salaam parce que parce que fi'lu amru la yàlla dana ko xul waxal waxal yow rasulullahi mhm. waaw waxal waxal ni allahu ahad waxal ni yàlla kenn la moom borom bi subhanahu wa taala mhm. qul huwa allahu ahad samad yàlla kenn la te waxal gaa ñi nii moom moom la ñëpp jublu. maanaam ñi xa wax ni ñi wax ni amul sax bu nu xëyee wax wax ga nuy wax yàlla. tàllal seen tànk dox yàlla. ndox ga nuy dox yàlla. qul wallaahu ahad allahu samad. Mamadu mu ni ko naam mu ni ko wax leen ni moom yàlla moomu lam yalid walam yulad. waaw amul ëllëg malaaka yi di la réglé nga naan sama doomu bàjjan laak wax naa la keroog wala sama maam laak yàlla du maamu kenn alaj pap sama mbokk la wala wala sama mbokk la <laughs> ñun la la kooku jurul kenn du ngeen bokkee nan naka ngeen bokkee. waaw yenn saa yi nga ne diw sama bokk la ndax sunu ñaari maam yi bokk maam wala sama maam maam ñoo daan ànd wala sama maam moo daan ñëwal maamam yooyu yëpp amul amul foofu mhm. lam yi liddi wala mu yu ladd mhm. te ñu koy wutal nawle di jaamu keneen ku dul yàlla mhm. yàlla wax si juna Muhammad artunu ne wax leen ni moom yàlla lam yakun lahu kufuwan ahad amul nawle moom borom bi subhanahu wa taala waaw yàlla amul kenn koo koy tëkkaleel nan yàlla am na wala yàlla ak nangam ak nangam. Mhm. yàlla amul nawle benn buur la moo bind asamaan moo bind suuf moo bind nit moo bind jinne moo bind malaayika moom képp kot dong rekk luy leer mooma waaye lépp mu bind ko ci leerug rasulullahi kon yàlla alaaj pap ne mën naa baale lépp ba mu des ku may bokkaale. voilà et li garaaw ci euh, naafila bi. Euh, lixlaas bi defe naa sept fois la ñu ko war a tari. Hmm, jur sept fois te chiffre sept boobu dafa garaaw itam. ba tey ci alxuraan chiffre sept moom juróom ñaar. naafila bu garaaw a ngi. naafila bu yéeme la naafila bu doy waar la naafila bu yéeme la nga xam ni mag ñi mag ñi hmm. dañoo ràbbee nu ñoo jaamoo borom bi subhanahu wa taala. Hmm. ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam alaj pap bi mu demee al isra wal miraj yàlla daf ko jox ñett nga mën a dégg yàlla am na ci loo xam ne jox na ko ko muy julli. njool màkk indil nu ko ñun jullit ñi mhm. ñu bokk ñun ñëpp ñu yëgandoo ko mhm. waaye am na ci loo xam ne yàlla da ko da ko wax rasulullah yi njool màkk déyante ko ak saxaaba yi mooy sirru mooy mhm. secret Ah. mooy secret yi kaa yi déyante mhm. waaye am na ci boo xam ni Moustapha rek la ko yàlla jox keneen du ko xam moom kese moom dong moom yonent bi alayhi salaam yàlla ak moom dong am ci beneen boo xam ni Moustapha defe naa boobu mooy xaqiqatu muhammadiya xaqiqatul muhammadiya xam nga alaaj pap xam nga xaqiqatul muhammadiya mhm. dëgg dëgg yonent bi mbaa xam nga ne alaaj pap mhm. dëgg dëgg yonent bi sax bu ñëwoon moom yonent bi bu ñëwoon dëgg dëggam soo ko xoolee da ngay ruy da ruy ndax kiiraay ga dafa fort dëgg dëgg yonent bi dëgg dëgg yonent bi. parce que man loolu dama koy wër biir Médine. mais laaj koy biir Màkka. waaw damay damay sob damay mel ni. Euh, di laajte touriste bu wàcc. buy buy wër ci ci Mbour. waaw dama koy wër man biir Médine. mais doo ko gis. ndax xijaabuhu nuurun awin naaru. lawin la est-ce que lawin kashafat la ahraqat subahatu wajhihi mëntaha ilayhi basiru ñu ni moom kiiraay ga kiiraay ga safara la wala leer la. ñu ni dëggam nga bu ñëwoon ci àddina alaj pap soo xoolee njool màkk da ngay ruy ah. moo tax njool nabi bu daan dox amul takk ndeer xam nga dox mm-hmm. mm-hmm. ndeeram moo ñëw mm-hmm. moo tax ba mu demee al isra wal mi'raj seeti yàlla daa gis jëmm ju rafet na jibril kii ko mu doon rafet na mu ne ko yowa yowa sa takk ndeer moo wàcc ci àddina moo tax njool màkk bu doon dox amul takk ndeer moom rasulullah loolu yëpp neex na mais doo ñëw tuuti ci xaqiqatu muhammadiya mais alaj pap xam nga loolu loolu géej xale xamuñu ko waaw ah? xale yi xamuñu ko moom la ay xale jamono la ñu ay tubaab la ñoo nit yu moderne ay nitu bureau déedéet ak nitu jamono la daa man xijaabu nuuri ci xaqiqatu muhammad la daa man xijaabu nuuri mhm. wa bil kibriya wal xizzi asbaxa radiya mhm. waaw moom yonent bi alayhi salaatu wa mu ni daa man fas fa nga xam ni mhm. dégg nga waaw maa ngay ñëw ci xaqiqatul muhammadiya nag fas fa nga xam ni fas fa nga xam ni xijaabu nuuri kiiraayu leer ya kaana nekkoon na xijaaba o oh, di kiiraayam ndax kaana dafay rafaa lisim di di nasab xabar la daa man xijaabu nuuri kaana xijaabuhu waaw nga nga gis alaaj pap xaqiqatul muhammadiya dëkk dëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu yàlla rek moo ko xam waaw yàlla moo xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo xam yàlla moo tax moo tax daan wax ni ana minallaahi man man dong gis nga ma nga xaqiqatul muhammad yee ngoog ana minallaahi man maa bàyyi ko ci yàlla joxoñ ñu ne wal muminuuna min nii man maa bàyyi ko ci yàlla waaye yéen ñëpp ci man ngeen bàyyi ko moom rasulullahi moom la waxoon Seydina Omar pour nga xam dëgg-dëgg yonent bi ne ko ndax xam nga ma Omar ne ko xam naa la Abdoulaye la jur Amina la jur mhm. nabi ne ko xamoo ma de mu ni ko askan wii nga bokk tamit gir Quraysh nabi ne ko Omar maay kan mu ni ko gëm naa ne yàllaa la yónni mhm. nabi ne ko Omar ndax xam nga sama dëgg maanaam li nga laaj. xaqiqatul muhammadiya ndax xam nga ma dëgg Omar ne ko xaw ma la ndax yaa rasulullah. mais mais moo tax aarif yi bu ñu duggee ci domaine boobu dañuy daanu leer ñoom. mais da mu alaaj Pape moo tax moo tax mbiru aarif. Mhm. boo ko bëggee topp da ngay am problème. Ah, ndax leneen li ñuy dund tax. Uh-huh. moo tax wëllu yu ak nitu yàlla mu am lu mu def nga ni ndax lii. sariya da ko non non kawe na kawe na ko